pour ñëw jàpp léegi dama bëggoon dama bëggoon xam benn affaire ci ñi nga xam ñoom. daa rot <laughs> interception euh, d'un des membres ah ñi nga xam ñoom ñoo war a def seen marche tey ñu ñu ñu jege voilà ñu ñu jege xool kooku kan la ñu jege. ñu jege ko ñu ngi koy wàccee ci oto bi. voilà ñu ngi koy wàcce ci oto bi il fait quelle heure grand wax ma heure ke wala action bee ne ah kooku tamit euh, dafa doon def demi tour mais ñu ngi koy wàcce kooku ñu ngi koy wàcce moom tamit mbokk yi gis ngeen en direct ci Sénégal yéen a ngi seetaan kii moom dafa verrouillé otoom 4 x bi génnul 4 x bi dafa verrouillé otoom génnul kii tamit dafa verrouillé otoom génnul oto bu weex bi nee na du wàcc ñi ngi wax ak moom nee nañ ko ubbil bunt bi police lañ ko quadriller actuellement voilà voilà nañ leen wàcc tali bi nañ leen wàcc tali bi wàcc leen tali bi léegi nañu wàcc tali léegi oto bi def na demi tuur nitu dëgg Karim Xrum moo fi nekk Karim moo nekk ci biir oto bi léegi léegi bañ na oto bi 4 x bi dañ ko dañ ko dañ ko verrouillé nee na du tijji otoom nee nañu du tijji otoom actuellement on va suivre on va on on va essayer de voir ki nga xam moo nekk ci 4x4 bi jox ko jox ko jox ko léegi on va on va essayer. s'appelle OPUD organisation pour la promotion de l'union dans la diversité nous avons constaté des choses. C'est que la cherté de la vie devient un cauchemar pour les Sénégalais. On ne peut pas s'en débarrasser. Pour quelles raisons Nous aspirons à de meilleures conditions de vie. Nous ne pouvons pas comprendre être dans un système où la minorité baigne dans l'aisance et dans l'opulence, tandis que la grande majorité que nous sommes, nous croupissons dans les flammes de la misère et de la pauvreté. Nous avons le droit d'être là. Mais tant que nous allons sortir... vous êtes venu au Sénégal Parce que j'ai ma famille ici. Ma famille est à Guédiawaye. J'ai une épouse qui s'appelle Fatima Bintou Rassoul. J'ai un enfant qui s'appelle Abdoulatif. Je suis avec... OPUD, Organisation pour la promotion de l'union dans la diversité. Nous avons constaté des choses. C'est que la cherté de la vie devient un cauchemar pour les Sénégalais. On ne peut pas s'en débarrasser. Pour quelles raisons Nous aspirons à de meilleures conditions la minorité baigne dans l'aisance et dans l'opulence, tandis que la grande majorité que nous sommes, nous croupissons dans les flammes de la misère et de la pauvreté. Nous avons le droit d'être là. Tant que nous sommes calmes et nous respectons les lois en vigueur, nul ne peut faire quoi que ce soit contre nous. Mais tant que nous allons sortir... Parce que j'ai ma famille ici. Ma famille est à Guédiawaye. J'ai une épouse qui s'appelle Fatima Bintou Rassoul. J'ai un enfant qui nee na Guy ceeb bi dafa cher nee na ceeb bi dafa cher nee na dund bi dafa cher Guy Marius ñu ngi naan ko mu wàcc mais mi ngi dugg ci biir odoom rek nee na ndox bi dafa cher courant bi dafa cher luwaas bi dafa cher diwlin bi dafa cher ñun obélisque la ñu bëgg a dem pour manifester pacifiquement obélisque la ñu bëgg a dem pour manifester pacifiquement. Euh, Guy maris moo doon wax noonu mais policier bi dafa sës rëkk ci otoom mais du gaañ Dijé euh, kii nekk ci association lutte contre l'indiscipline moo nekk nii tamit ci kanam oto bi nekk fii Sénégal Guy Marius moo nekk noonu ci ginnaaw oto bi ah léegi Guy Marius takk der bi mi ngi nekk ci woto bi di xaar mu tijji mais mu ngi ci oto bi mu ngi wax tamit lu ko naqari diwliñ bi dafa cher ceeb bi dafa cher cere bi dafa cher gerte gi dafa cher transport bi dafa cher voilà loolu yëpp ñoom ñu ngi koy wax dafay am tamit ñoo xamante nii ñu ngi ci biir nit ñi dafa mel ni kii euh, marche bi c'est c'est une réussite ah parce que y des gens qui son autour de nous ñoom ñu ngi wax seen soxla am na ñoo xam ñu ngi si autour de nous ñu ngi wax seen soxla am na ñoo xam ñu ngi suñu biir yéen a ngi dégg euh, waaw stratégie bii nii xëy na ñoom tamit réussir nañ ko mais la police day bañ Karim Xurum Xaq àgg. dañuy bañ Guy Marius Sagna mu àgg ñoom ñaar ñëpp ñu ngi seen oto verrouillé ko waaw police dañoo bëgg ñu tijji seen i oto pour ñu jàpp leen mais ñoom wu ñu seen oto dañ ko verrouillé voilà yéen a ngay dund en en direct oto bi ñëw na am na benn boy bu ñu jàpp noonu am na kenn citoyen sénégalais la moom la ñu arrêté noonu mais la police ñu ngi def beneen stratégie ñu avancé barrière yi ñu ñu ñu ubbi ubbi nañu barrières yi attention ah, attention ngoone ngoone génn génn génn génn génn génn rek génn rek waaw ah, génn rek génn léegi ubbi nañu euh, barrières yi ubbi nañ barrières yi am na benn jeune boo xamante ni ils l'ont léegi ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi si biir di wax seeni soxla. avec les léegi gis ngeen Guy Marius Sagna ba tey mi ngi ci biir otoom tijjeegul mais policiers yi ñu ngi taxaw di ko góolu ak DJ Malick mi ngi ci biir tamit ñuy xaar rek di ko góol léegi wër nañ oto bi dafa mel ni ki am na benn stratégie bu ñu bëgg a teg Euh, ñu suivre loolu. ñu suivre lool dafa mel ni ki am na lu ñu bëgg a def ci biir oto yi je sais pas xaw ma ba xam dañuy déverrouiller euh, oto bi xaw ma daal ba stratégie la ñuy bëgg a def mais am na lu ñuy lal yi ñu xool lu ñuy lal am na lu ñuy lal voilà dañuy ubbi pour oto yi dugg <laughs> xam naa bu ñu duggee ba foofu ñu ñu kidnappé leen foofu. ah ok ok nañ ko Ablaye xoolal ma fii ci suuf ab Ablaye gis nga jël nañ barrière def nañ ko ci ginnaaw ruu yi. jël nañu ay barrière def ko ci ginnaaw ruuwu oto yi baal baal baal baal jël nañu barrière yi def ko ci ci ginnaaw dañ ko baare maanaam oto bi mënul avancer mënul arrière voilà oto bi mënul avancer mënul arrière du dem du dikk amul dem amul dikk oto bi danaan copp toog léegi nag ñoom ñu ngi jéem a xool nan la ñuy def Guy Marius Sagna mi ngi ci biir oto bi si 4 x chauffeur bi mi ngi wax téléphone takk ay lunetam yu rafet ngir yàlla may leen ñu def waaw ñun kay jege wuñu foofu euh, commandant ñun kañ laaluñu sax oto bi yéen a ngi def seen liggéey ñun ñu ngi def suñu liggéey voilà nee na il faut l'obliger mu obbi oto bi loolu la ko wax nee na il faut l'obliger mu ubbi oto bi nee na ñun ñun nañ sori oto bi mais laaluñu jege wuñu waaw. laaluñu jege wuñu ah yeneen barrière renfort de barrière renfort de barrière nee nañ nañ indi yeneen i barrière oto bi gis ngeen niñ ko niñ ko niñ ko kalee dañ ko kale dañ ko kale ci ginnaaw ruu yi ak ci kanamu ruu yi même oto Karim noonu lañ ko def maanaam dañ leen di forcer léegi ñu wàcc ci oto bi ils vont forcer ñi nga xam ñoo ñoo occupé oto yi am na ñu nekk tamit ci oto bi nee nañ ko ah ñii ñoom xaw ma ñan la ah ah ñii ñoo ànd ak gars rek ñoom ñoo ànd rek ñoom ñooy marcheurs yi waa nit dëgg waa frappe France dégage yi ñu ngi nii. ñoom ñëpp seen ñetti oto yëpp baare nañ ko xoolal bii tamit Ablaye xoolal xoolal niñ ko kale kale nañ ko ak barrière tamit barrière nañ ko maanaam oto bi du avancé du arrière <laughs> na na na na gis yëpp oto yëpp nañ ko am na kuy wax fee wala Guy maris la dafa mel ni kii moo bëgg a wax dafa mel ni ki euh, dañuy waxtaan ak moom dinañ ko baa ba mu génn dañuy waxtaan ak moom ba mu wàcc. day waxtaan moom wàcc kale nañ oto yëpp waaw oto bi du ci kim ca du dem ganam du dem ginnaaw du yëngu ñoom ñëpp marcheurs yi ñu ngi ci seen biir oto toog voilà voilà peut-être lii on va se poser la question est-ce que réussite la wala du réussite en tout cas yéen a ngi gis image yi yéen ñëpp oto yi ñu ngi taxaw ñoom ñuy marche ñu ngi ci biir oto yi xam naa la ciy topp rek mooy nee nañ leen nañ ubbi oto yi est que oto yi danañ ubbeeku wala duñu ubbeeku je sais pas voilà dama mel ni kii ñu ngi wax ak Guy Marius Sagna côté bële nee ñu ngi wax ak Guy Marius Sagna côté bee nee waaw ndax moo jiite mbir mi c'est le leader ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi baab dige Malick tamit pour mu tijji. mais ñoom dañoo bañ ne duñ tijji dañoo bañ ne tijji wuñu seen oto ñoo seen oto ñu ngi si biir clim bi ñoom sax ñu ngi filmer ñoom si biir ñu ngi filmer les images ah. ñu ngi ñu ngi wut ah, ñoom tamit ah, ay témoignages gis nga ñu ngi filmer ñu ngi waxtaan ci seen biir la jeunesse est la gis ngeen ñoom ñooy xale réew mi lañ leen tax a jóg nee nañu lu ñor réew mi moo leen tax a jóg. diw bi gerte gi suukar si ceeb bi léegi léegi ñu ngi lal ay stratégie ñoom ñu ngi wut ay stratégie ñoom nan la fexe fexee ba ñu nekk ci oto bi génn ci oto bi waaw waaw ñun kay ñun kay <laughs> ñun sax dafa am ay caméraman yu nekk si biir yoo xam ne dañ ne ay caméraman lañu ay sont des civils léegi ñu génn. ils sont tous waaw ils sont tous à l'intérieur da ngeen policier bi li muy wax mi ngi wax ak seen kilifa nee na ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ils refusent de nous parler dañoo bañ a wax ak ñun ñoom ñëpp ñu ngi ci biir oto bi ñu bëgg a wax ak ñoom ñoom dañoo bañ lànk carré ne duñ génn seen oto duñ wax ak ñun am na ñuy kaas fee dund gi dafa cher. ñooñu tamit euh, xëy na dina am lu fa xew ñu dem ñu dem foofu ñu dem foofu ma ma wax ak ñooñu am na ñeneen ñoo xamante tamit euh, ce sont des manifestants ñoom it ñoom tamit ñu ngi man Nous sommes des Guimard Sagna, nous sommes des Abdou Abdou Karim Gueye. La ville elle